Euh, alxamis 23 mai 2019 9h33 minutes moo jot euh, ci studio Awa Mbaye immeuble El Hadj Iliman Ndour rue 15 angle wax naa premier c'est le palais de l'immobilier hmm. baan maa ngi lay ziar euh, di ziar sama xarit Mamadou Mohamed Ndiaye l'homme noo def da ngaa commencé gaañ waaye Instagram bi waaye moon na leen waaye gars ci lu ngeen ne yéen a ngi am jàmm balaa ngeen ma laaj ma tontu leen fa ma nekkoon démb ay marakis laa uti woon en gros <laughs> c'est l'approche de la ngaay nga demoon. Ah, ah uti woon naa daal ay marakis. Hmm. Hmm. ah kàl ci daalu ngaay. bu dee da def ay commande ngaay. Hmm. bàyyi naa fa say commande. man <laughs> maa ngi lay ziar. maa ngi sant bu baax naka mu. sant nañu baax ñu ngi sant di ziar Ndiaye. di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ñu nekk ci Instagram ñëpp ñu ngi leen di ziar rek ñi ci réew mi ñi ci bitim réew ma ay laaj yu ma leen bëggoon a laaj yéen ñaar. sa téléphone bii. ñaari téléphone bii nu mu tudd. bii. waaw mooy X max. lu muy jar. ah man daal comme du ma xam prix man dañ ma koy di ma ko jox. déedéet da jënd. non non non non yii moom dañ ma ko. jaay sa bos bi lu mu nu mu tudd. 3310 Nokia. Ndiaye démb nee nga ma sa téléphone bi cinq cent cinquante mille lay jar. Eh. bii lu muy jar. yii nag moom maa ngi dégg xale yi naan ay six cent cinquante lay jar. mais comme man bii cinq cent lay jar. x la ak x max. man bii bii bii man Badou Sakho ma ko jaay. waaw toj Sénégal cent dix mille desel naa ko quinze mille vers euh, dafa toj sax gis ga hmm, gis nga man mënuma di toog ak ay nit yu sol yoo yor ay téléphones cinq cent dix mille. Hmm. ay six cent mille ma yor téléphone yu cent dix mille. Hmm. man daal jaaxal na ma. léegi bu ñu booleeg àdduna bi. Serigne Abo moom sëñ Cheikh Saliou moo ko yëkkati jox ma. Ah. lu muy jar. ah joxuma facture bi de. léegi nag yow yaa ngi ñëw ci man man su ma amee man ab vitrine la. boo xam ni nit ñi dañ may topp ci réseaux sociaux yi bu baax a baax a baax. léegi nag lii waa Galaxy ñoom ñoo ma koy jox ma téye leen ko bii sëñ Mbàkke ma ko jox ma téye ko ko. xam nga ñun ci nekk dama lay accompagner. ci ay du ñu digal nit ñi ñu raisonnable. waaw ba pare ñun ñuy démesuré. waa waa comme ni nga may yow boo yëkkatee sa man su ma yëkkatee woon tey cinq cent et quelques mille di ko jëndee téléphone. Ah. ma jox ko sama baay baa ma jënd ko téléphone. jox ko sama baay. Mm-hmm. Mm-hmm. ma ne si waaye bu ma sama sëriñ surtout sëriñ Touba yëkkatee téléphone. jox ma yóbbu wax ja. dëgg la koy téye du ma ko joxe. yaay yaay dëggal fa mu yóbbu waay. dama lay wax li am rek yaa ma yëngal. léegi nag ba ban nag ba ci lépp nag ci côté yëpp ci dàll ci yëre ci dara ay vitrine lañu yoo xam ni. gaa ñi dañuy xam ni loo def yow kii yéen yéen ñaan ñi. waaw waaw gaa ñi dañuy xam ne loo def wala loo laal nit ñi damay laaj ma seeka man man lii nii man nit ñi ndax dinañ ma nit man de bu wax dëgg rek wax dëgg yàlla. billaahi jaay ko téléphone dina ma woo pour may ma téléphone mais damay bañ. waaw yow loolu yow la man moom balaa nga may woo. man damaa bëgg maa lay ñaan. waaw non damaa bëgg. balaa nga may may ma ñaan la man dama xam nga dama bëgg moom sama bopp rek sequma ak ñoom may ak ñaan <laughs> ñi ma war a may daal ma mayee ma jël xam nga su la la mayee téléphone da leen may dédicace par force man samay man man mayuma kenn dédicace par force man nag gis nga baan man nag moom ah, fi ñu toll dama jaay ko téléphone ba su triandé nit doo ko mën a xalaas eh, baan xalaasu man nit man ànduma ak sama ngor damaa jaay sama ngor ak ma yëpp laa jaay <laughs> pour mu leer loolu moom yow yéen ñi yor téléphone tey maye daal man ñaan naa leen waa Instagram gis nga man sama bos dafa toj <laughs> gis ngeen ni man téléphone bu toj laa yor. Eh, eh, ndeysaan te ci la xalaas yi di génne. wala téléphone x max jox ma mbaa ma suba eh, du ma ñëw. Aliou Ba ñaan <laughs> anta ku diiñ de xoolal xeetu ñaan gu diiñ gi oh, téléphone ma defee maa ngi nii ma kenn téléphone déedéet déedéet ah, non man tey tey su ma koy laaj waa non non man su ma koy laaj waa rajo bi laa koy laaj. wala ah, wala waa kii wala ma laaj ko Birane. Mm. sam ordinateur Birane war na maa jox benn ordinateur. dëgg la ndax ordinateur ba dafa jékki-jékki di génne yu kenn xamul. dëgg la naa ba ko ko. dëgg la njaay mii dox na ci ba man de bu ma permettre woon ordinateur ñaar mu dugg ci kër gi. léegi ñaar dugg fi. non non non wallaahi léegi ni bu ngeen mënee na ñaari ordinateur dugg suba ci kër gi. non non ñaar dugg. <laughs> lu fi ba lu fi bon ñun lu ci sunu yoon. ayca nañu dem ci xalaas bi nga euh, Ba euh, ay mag boo leen euh, jekkoo. Ah. la. X Max. <laughs> Aliou Ba mi ñàkk nag kersa. kii nii. Ndiaye. Mm-hmm. ndeysaan dafa ànd ak xelam. dafa ànd ak xelam. pas kii wax wax magam la benn femme boo xam ne ndeysaan dafa dafa feebar. Mhm. di léegi mu ci réer. Mhm. dafa amee doom nag bébé bu bu bu bu bu bu sax mu boot ko réer. boot doom ja dem. dem mu feeñ ne gisuñu doom ji. daa ilaha illallah. waaw déglu ko. waaw soxna si mu ngi tudd Fatoumata Bintu waaw Fatoumata Bintu la tudd Fatoumata Bintu Ndiaye ñu dëkk jàmm gën. affaire yi vendredi la ko daaneel samedi bi bu ci dimanche bi samedi bi commencé woon na tane sax bu ci dimanche bi ci dimanche bi daal la rëcc fekk mu boot xale bi ndaxte boot na xale bi ba rëccuñu donc daf ñu rëcc ci kër ga lu ñu rëccee lu gaaw gaaw génn nañ doon ko wër xool foofu yëpp kenn gisu ko ba le lundi ñu ngi nekkoon ci wër bi ba le lundi la ñu woo sama papa. wax ko ne gis nañ ko soxna si mu ngi tudd Faatumata Bintu Njaay bébé bi mu poot mu ngi tudd El Hadj Babacar Njaay Touré xale boobu nag moo réer parce que bi ñuy woo sama papa dañ ko woo ñu ne ko moo ngi ñoo ngi ko gisee point E côté Gueule Tapée Sam yooyu chef de quartier bi nekk foofu moo woo suma papa ne ko dañ ko fi indil benn xale moom ni numéro sa numéro la joxe benn xale bu jigéen sa numéro la joxe léegi ci biir ay waxam sax parce que tey ci suba joon nañ ko jéem a naxtaan di ko laaj xel bi ba léegi dellu seegul bu baax mais agité bi mu agité woon wàññeeku na ñu ngi ko doon naxtaan di ko laaj mu naan muy sànni mu naan euh, ay côté kii côté yëmbal côté mëbës yooyu waaf di wax di génne na loolu daal ci biir waxam bi waa ay yëmbal mbëbës mel ni jaaroon na foofu foofu sax dem nañ faa dem pour xool ba wax ko chef de quartier yi nekk foofu mais mu ngi noonu waaw njàkkare la ñu nekk njàkkare jaaxle nañ ba fu jaaxle yam ku wérul moom munoo xam fan la def doomam léegi sa numéro la joxe léegi ñoo ngi mën nga ko ñëw jël si mu ngi fii sama papa ne ko kooku de dafa bootoon xale dafa yoroon xale parce que ñun ñaar ñëpp lañuy ñuy wër mu ne ko kiñ fi indi indi waalewul xale waaw indi waalewul xale léegi nag euh, ci la sam papa taalee dem ba foofu récupérer ko mais dafa nekk nit ku wérul waaw ñu ngi ko doon laaj ndànk-ndànk di kon naxtaan pour laaj ko mais dafa gënoon agité ci lañ ko jël yóbbu ko hôpital pour mu dal waaw depuis boobu ba sànq ba tey ñoom ñu wër xale bi waaw bu fekkee ne dafa am ku ko téye waaw bu déggee ci kii bi mën ñoo jàppale li laay rusuuli indi xale bi parce que xale bi mënul wax inaa n'a que deux ans léegi euh, lii moom ba kañ. xale bi am deux ans je sais pas xaw ma ndax mën nañu publier photo xale bi. amee ah, waaw ah, euh, photo yi mi xale yi moom bu ñu réeree koy wër moom c'est pas dinaa leen jox photo yi ñu jëm ko publier. parce que buñ ko wërul du feeñ. waaw waaw waaw après dinañ ko dinañ ko dugal ci Instagram bi. Mhm. Euh, gars yi gis ko liggéey nañ ko dugal fu nekk ban. waaw fépp dinañ ko yóbbu sax quartier général. waaw waaw waaw waaw waaw il le faut waaw. c'est compliqué femme bi ana ana ana ana jëkkëram. wala yooyu yëpp waaw loolu waaw jot jot yombal détail yi film ni am na jëkkër tout mais en tout cas daal dafay yàgg di rëcc ñu koy jàpp di indi mais bi muy rëcc cette fois dafa fekk mu boot xale bi. dem ak moom dem moom leena ma ni nit ku baax ko gis xam ni kii wérul mu nax ko récupérer xale bi téye ko xam nga fii Sénégal day am. bala muy gaañ xale bi wala mu koy sàkkal pexe. ndaxte maa ngi ñoo ngi ci am benn benn benn benn cas bu bu genre cas bu mel bu bu bu mel benn femme buy ñaan baar parce que jëkkër ji da ciy dugg pare xamul jëkkër ji day daanu yees yees yooyu su meree day daanu yees. sa mhm. guddi su tëddee rek day jëkkër ji daanu yees fekk xale baa ci biir kër gi. ndaw si nag neen ñemeetul tëdd jëkkër guddi mu daanu fi yees te dañoo yom bébé mën na leen a rey rey jabar bébé rey bébé ba su boobaa yii rek lañ fi nekkaat di waxtaanaat ay pendam moor yu kenn xamul. yees gi ngaa ngi ci dëkk bi parce que waa ji ñu woo ko ca kër ga. goro ba di ko lijjanti di ko lijjanti di ko lijjanti di di ci sëy bi ni jëkkër ji waaw neel sa yaay sama doom ji doomam la su ñëwee ci këram na ko jàppe comme doomam patati xam nga rek na ko téye comme doomam waa ji mer daanu ko lu tax ngay wax sama yaay loolu daanu yaasi ci kër ga kooku koy may jabar daanu ko yaasi kay ne tekki ndombaab wala yooyu muy sangoom wàññi ko rek waaye daanu ko yaasi kenn du ko joxub jeeg nag wóorul daañu jox ko jeg buy daanu comme moom. waaw voilà ñoom ñaar suñu daanoo waa ñu xaw ñu ñu def. mais léegi léegi képp koo xamante ne ji gis nga lu mel noonu. waaw ah. dimbali ñu xam nga ñaar rek ma ñaari ñaari cas de figure rek moo mën a am. Mhm. comme li nga wax nit ku baax gis na ko xam ne. tey na ko eh, àndut ak xelam wala ci condition yi mu ko gis doyu ko mu nax ko ba nangu ko loolu benn kii la mais supposition la. Mhm. safaan nit mën naa am. Mhm. nit mën na koo gis gis ne ànd wala mu fekk muy nelaw wala mu gis xale bi di jooy mu ne ko coppet yóbbu mais kum ci mënti doon. Mhm. doomu jàmbur la indi leen ñu ko. te moom xale bu jigéen bi. Mhm. ay mbokkam nañ ci taxaw. ah li ñu def nii ñëw ci rajo bi di di di di expliquer cas bi. Mhm. moo gën a metti fuuf tey woon ko tey woon koo gënoon a yomb. am na loo xamante ne ji amul loo ciy seet amul loo ciy ruus amul loo ciy maslaa. bu ñu nangoo xale bi day mer wala day jooy wala day kii wala day triste lii moo gën a metti. lii moo gën a metti. cest ku ci am mbokk boo xam ne yàlla daf ko def daf ko teg feebaru xel. Mhm. téye ko. Mhm. na doon ki ngay gën a jox cër ci kër gi. Mhm. na doon ki ngay gën a wekk ci kër gi parce que bu fekkoonte ne mook sagoom rek la. ni nga mel lay mel. mais fii Sénégal yàkkamte nañu ba nga am laago ci famille ñu beddi la. ah yàkkamte nañu ba nga feebar feebaru xel cest ñu bëri seenu ndof day commencé nit ñi lay ràngati. xeeb te ñi lay ràngati sa biir kër la ñuy doon. Mhm. gis nga nit bu woppee nga di ko daw yokku nga la ko metti Sénégal dof du fi wér rab yee jël concert rek fii. nañu fonk ñu nekk suñu biir. doon suñuy mbokk wala suñuy dëkkandoo te yàlla deful ñu mat. Mhm. bala ngay xam ne bu fekk c' est pas pas parce que ki ki ki ki laago moo matadi wala ki dof moo matadi ñu baal ma ci kii bi nga gis nit ku kuñ ne mat na mu def njuumte loo xam ne day taxaw naa li lu mu ci dugal. ça veut dire que benn doomu aadama. kenn matul dafa am ñoom seen cest ñu seen matadi feeñ di di di di feeñ lu bari. ak mhm. seen bos di feeñ lu néew. Mhm. ok nañu fonk suñu mbokk. Mhm. lu am solo la de. yi yi yàlla teg natt. am na solo. Euh, euh, ya ñetti ndaw si amoon ñetti doom affaire yi mi ngi avancé parce que am na ay nit yu am solo ñu ci jàpp ñu ci mel ni ONG Jumeaux am benn femme bu ñu naan soxna soxna Mbàkke euh, su yore ONG Jumeaux parent du Sénégal moom ci boppam moo fayal ndaw si ca hôpital ba. fay na fay na ko ba pare waa hôpital bi jàpp ci ba pare service social bi jàpp ci. waa kii nu mu dootati conseil social xam lan économie ki waa social kii bi kii yor journaliste ba nekk fa waaye ñoo ko may meew fii ak ah, neuf ans caisse sécurité sociale euh, meew neuf mois ak defe naa ak ay couche fii ak neuf mois mhm. dinañ ko topp di ko toppatoo ñun tam ñu ngi koy topp di toppatoo affaire boobu pour que yooyu yëpp mu mën cee jot waaye ONG bi moom def nañ euh, différence bi fi mu ndaw si lu xale yi lekk ak lu ñu sol ak ñoom seen moo ci des waaw di nuyu sunu ustaas bi. Alioune Sall ñu ngi lay ziar dafa ñëw def si xalaas tey. Mm-hmm, mm-hmm. daa def si xalaas. non ustaas Alioune Sall yoon wi tey. moom la ci RFM voilà 15h30 ba 16h. Mm-hmm, euh, 16h30 mooy ñëw ustaas Alioune Sall. waaw ñu ngi koy ziar bu baax a baax. mais ustaas waroon nga ñu wax nag ndax ren wooruñu ñaari yoon. koor gi jege na lool ustaas <laughs> daf mel dañoo woore at mi dañ cee woor ñaari yoon quoi. Ah, benn dong la. Hmm. Ah, <laughs> ñu ñëw ci bi ci topp Ndiaye di eh. félicité waa festival festival Fal salaam ba ba amoon piir démb daal waa Pire ñoo ko gagné. Cees la amoon waa Pire ñoo gagné ñoo jël coupe ba ñaari groupe ba nga fa woon. festival Salam amul benn waaye ñi doon jàng ñëpp ñoo far ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo bokkoon ci festival bi démb ñëpp jàngkati Pire yee leen dàq jàng. mais mani festival Salam amul coupe laa wax. amul coupe mais ñoo dàq jàng ñoom lañ gën a tàccu. lépp lay waat waxoon laa koy wax rek. waaw loolu mënoo koo prouvé. waaw <laughs> problème yow looy contrer sama jànkat yow. Eh, non yàlla tere ban bu ma booleeg jamono yow. <laughs> kii daal nee na na ko na ko jëkkëram bàyyi. te ñoom ñaari sëy. Ndiaye. Ah. àll baa ngi toj. xale bii nee na moom bi mu amee sept ans six mois lañ ko papaam ak yaayam maye. sept ans kiñ ko may quarante ans la am. di taxawal sept ans wala dix-sept ans baan yow non yow <laughs> eh baan yow ci wax ji ma gi génne pour lan. wax jaan kii na ko jëkkëram bàyyi ma na ndax ñoom ñaari sëy nga tëb ma naan ma Ndiaye àll baa ngay toj la moo tax nga may tëb. moog jëkkëram waaw. ñu ngi sëy. ah waaw ay kon buum gaa nga fa buum nga ma nga fa. waaw ma nga fa. Ah, mais moom jël nay bagage am génn kër ga. Uh-huh. bañ koy maye nee na. ci ay hmm. waxam di nga ko dégg wax ko sept ans six mois la am. ci àll ah, bi mu dem jëkkëram mi ngi am quarante ans. jëkkëram yërëmu ko def ko dara di def liggéey bi ba maanaam. di ko jabaroo. dafa am lu échappé ci wax. kii dañ ko war a jàpp. jàpp jëkkër jàpp papaam jàpp yaayam. sept ans la def ci mariage bi wala bi muy. bi muy sëy sept ans la am. bi muy ay sëy sept la am. sept ans six mois moom moo ko wax di dégg mu wax ko jëkkër ji am quarante ans ñuy sey <laughs> non non ban attendre moom wax na loolu. wax na loolu moom moo ko wax. jox <laughs> fi jël na bagage am daw si nekk fee. non jox ñu parce que lii baan bu de. waaw ah, déglul. mbokk yi damay sàpp si yéen di man parce que dama am lu ma metti dama marié bëgguma kil ma may bëgguma ko. ñu def ma mariage forcé bi may am juróom-ñaari at ak benn weer sept ans ñu may ma ko xam ne ni am na quarante ans bëgguma ko maa ngi juddu quatre-vingt-dix sañu ma marié maa ngi taawlu lan 2001 si laa taawlu taxul ma bëgg kenn ma may sama doom boobu ma taawloo sax fanaan na maa ngi moom si àll yi def naa lu ne ba xale yi xale bi njëkk a judd kenn ki sax bu yeboo ma ne xel bi neexut ndax fi daa fanaan ak moom dugg naa ci xori yéeg naa ci garab yi dugg ci forêt yi lu ne def naa ndax bëgguma kenn ma may sa kenn tegu ma metit boobu nag samay waajur ñoo ma ko teg ñoo fekk koo xam ne ni mat na ma maam ñu may ma ko ci juróom-ñaari at ak ñaari weer sept ans six mois kese ñu may ma ko am 40 ans bëgguma ko depuis boobu ba léegi nag ñu for sama yóbbu ko bëgguma ko ma koy jooy guddi di ko jooy bëccëg mu dëkkee ma dóor guddi ak bëccëg ba benn bis lu ndaw boole ñu moo nu boole mu jox ma ko ma ne ko indi ko tëggu ko sama loxo mu sànni ko si gétt nag loolu moom ma jot a dóor bi mu moo ma jot dóor si la ma dóoree bi may am bu doomam bu mujj bi trois mois si la ma dóor yet bi beneen bi es ma koy capté sama loxo mu dóor ma ko si loxo bi dam mu metti ma keroog xaw ma lu gis boobu yi niru bëccëg boobu affaire bu metti ma lool taw bi ma ko yam nanguwuñu ma sax yóbbu hôpital parce que xam na ni bu ñu hôpital dinañ leen jàpp ñu bàyyi ma ci kër gi ma xale bi mat un mois xale bi juddu ma nekk sama métit di ko muñ ba xale bi judd mu metti ma lool sa kente bu ma ko nag mu may samay waajur xale bi ba ma leen di am ñett la mënu ma sax wax xale bi may muy fay jóge ndax nee duma may baat tey duma may baat suba sama nit tamit bëggatuma fa dugg tànk wàccuma ndax àddina wóorut mën naa faa dugaat nin ma forcé bu la fay ma ba dugal ma fa mën naa faa demaat ñu defaat ma ko moo tax ñemeetuma faa dugg ma xool sama xale yooyu depuis 2012 ba léegi laa ko woon ginnaaw nenetuma wàcc si dundam xanaa tey mu bàyyi ma foofu ma yor sa buumam waaye moom xalaatuma wàcc sama nit bëggatuma ko sa àddina wóor parce que maa ngi Dakar di liggéey sa jigéen du tëdd day rëcc waaye li ma bëgg nag moom bàyyi ma sa yàlla tax maa sa leen 2012 ba léegi nit tee la nga nekk xale bu ndaw mu marié la def la mariage forcé sama dund gi sax deewee ma ko gënal damay jooy guddi di jooy bëccëg bëgguma sax ki ma nekk di liggéey xam ko yenn saa yi danaa ma yow doo lekk wala lan ngay xalaat ma ne ko du dara jàpp sama jàmbur di fa di ree bëgguma bi sax nit xam ko si man waaye ñun ñaa ko nag moom mënatuma ko moom moo bëgg nag ku ma si jàppale sa yàlla mu bàyyi ma waa ji na ma bàyyi duma leen ko baal ba keroog yamal xiyaam ndax émission bi ngay am sept à six mois di dund naqar nar koy dund ba fi mu ne nii may wax ak yéen ko judd quatre-vingt-dix taawlu laan deux mille un xob leen lool lan la leen niru sa nag dëkki àll yi loolu bari na si war ngeen yoo jàppale sa yàlla tax suñu waajur yi ñu ñuy tooñ man de teg nan ma métit maa ngi nag toog fi ma toog néew ma leen fi laan néew ma laan faa waaye metti na ma lool nag bu ndékkee nag teg seen doom yi métit ban dem ay leen ñu naan danoo réer noo leen ndax am na suñuy réer am na suñoo xam ne ni métit métit biñ leen di teg moo tax ñu mere seeni waajur ñu dem seen yoon bëgg nag ku ma jàppale rek sa yàlla tax waa ji mu bàyyi ma su ah, mais wax dëgg yàlla lii c'est abusé juróom-ñaari at. ah mun nii nii la ko waxee de te film nii defe naa est-ce que parents yi nekkuñu sax di ko wër parce que bëggatul dem ci parents yi bëggatul dem ci sëyam ba. neen na ko waa parce que am na ci âge yoo xam ne la koy maye doo xam. doo xàmmee soo demee ba xàmmee nag ba comprendre que ni say parents fii ñu dugal magum jëmm nga da ngay xam ni bon mi ngi noonu daal mu ngi noonu mariage précoce mais su fekkee lii mu ko waxee nii la demee waxuma la mariage précoce rek du mariage sax précoce la. non kii moom euh, détournement de mineur la. baatar na record yëpp. mariage tuuti. waaw su fekkee waaw su ndaw si ni mu waxee nii la demee moom. sept sept ans yi jaaxal na ma. sept ans six mois. sept ans yi jaaxal na ma. man nag balaa mënoon xam ñaata at la sëy moom mën na juum man balaa mënoon xam ñaata at la sëy mu wax ñaata at la am ak ñaata at la sëy. wax na wax na année bi mu judd. non sept ans lu mu wax man année la wax moom lu judd. at la toog ci. biir sëy 90. ñaata at la mën naa comprendre affaire. mu am sept ans ñu jël ko dénk ko paa bi mu dem ba toll benn âge bi paa bi def ko soxna. la je comprends. Mm. loolu laal d'accord na. Mm. mais la am doom. Euh, en aucune manière xale bu am sept ans moom duñu ko may jabar ah. loolu moom sa à xel mu gàtt yeggu fa ah. euh, aada yeggu fa ah. cosaan xam ngeen juróom-ñaari at fi xale di commencé see yi CP ngay def waaw Ndiaye CP ngay def xale bi 90 la judd am doom 2001 de 90 bu ñaata at la 80 ba nga ne ban année la judd 90 90 la judd waaw ba 2001 est-ce que 11 ans am doom 2001 waaw ban yaa ma fi indi ay calcul de. waaw. 11 ans la. 11 ans la 11 ans nit mën na kon su fekkee dañ na ci am doom. waaw su fekkee dañ ko koo dénk ba mu amee sept ans it paa bi bawu ko de. 11 ans est-ce que xale bu jigéen dinañ ci commencé gis mbaax ba ba ba war cee am doom. ah c'est que tamit lii lu ñu war a xoolaat la ah. moom mën na moom mën na def erreur ci at yi. xam nga kii nii démb lañu wax ak moom. Mhm. te ku judd 90 film nii doo xale. waaw démb ba ñuy wax ak moom du dof waxi nit la ñuy wax kii wax nii démb lañu wax ak moom. mais tamit Ndiaye euh, baan ko am 11 ans di am doom loolu tamit. Euh, non question bi war nañ ko posé waat. waaw 90 ba 2001 nee na nee na sax moom daf ci taxaw ci wax bi nee na imaginer ku judd 90 am doom 2001. moom moo wax wax jooju léegi nag baan damaa bëgg xalaas bi euh, mu nekk xalaas boo xam ni bu subaa dañ koy continuer dama koy bàyyi dama koy bàyyi ak auditeurs yi ak ñi nga xam ne ñooy followers yi euh, ñu wax euh, tey moom damay ni bàyyi ñu am loo xam ne dañ koy waxtaane moo joxee précision yooyu mhm. xam na li muy wax ñii déglu ñii déglu dégg nañ mu ni est-ce que yéen a ngi imaginer ndaw see ko wax ni ci mhm. reportage bi mhm. ku judd 90 am 2000 judd judd 90 am doom 2001 te gis nga lii nii ñun ñii la jaaxalaa ah. àll baa ngi toj da gis benn paa bu yor doomam doom ju am 10 ans mu dem may ko beneen paa naan ko jox naa la ko àddiya teguñu ko fenn. waaw xëy na moom noonu lañ ko def 7 ans la am ñu jox ko paa bi. naan ko jox nañ la àddiya mu am 10 bi commencé commencé ko jàppee soxna. waaw xëy na loolu sax xel mën na koo nangu. loolu moom xëy na xel mën na koo en tout cas fi ñu toll nii booy topp ay atam ba fi ñu toll nii day am ay vingt huit ans wala vingt neuf ans fi ñu toll nii. Mm-hmm. xale bu jigéen bi su ma déggaloon. Mm-hmm. day dem porter plainte papaam ak yaayam ak jëkkëram lii ñu ko teg teguñu ko fenn du dëgg du yoon agression la nañ bàyyi jigéen ñi ñuy agressé xale yi jigéen ñi ñuy def ni ci réew mi ay kuréel yu taxawu jigéen ñi. Ah. waaw ñoom nañ nañ ci jàpp. lii lii moom lii moom. ci moom la euh, des lii moom ku ne war nañ cee jug wax. waay mais compliqué na trop. li ñu mayoon euh, ci heure fi ñu toll nii dafa jot ay waxtu fi ñu toll nii dañu euh, ak lekk yeneen waxtu nañ jëm. waaw ah. allo présidence lii moom bu subaa dañu ko yeggali lii bu subaa ñu yeggali. waaw waaw. établissement Waa Kër Serigne Touba Fall